salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokku internet yi ah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla jàmm yàgg Sénégal ak njeexitalu koor gi koor gi di ñaan yàlla korite gi ñu fekke ko ay déwén yu bëree bëree bëri kenn bañ a manqué bien vrai que mënul ñàkk ah mais mooy suñu suwee ñaanalu ñu kenn lenn lu nga xamante ne ni waaw yàlla na yàlla def jàmm daal adduna bi yëpp positivité la ñuy ñaan saa su nekk comme ni ñu koy waxee saa su nekk ah bu def jeexul wax du jeex. di wax aussi gars ñu ngi gis commentaires yi ci internet bi ñu ngi gis YouTube bi commentaires yi lépp ah di yu positif yi yu négatif lépp ñu ngi koy gis mais bo di leen remercier yen ñëpp encore une fois di remercier ñëpp képp koo xamante ne nii xool nga vidéo bi rek dañ lay remercier parce que bala ngaa saaga wala nga wax leneen tamit da nga da nga seetaan tey jotaa bi li ko indi mooy waxtaan bi amaana li ñu bëgg waxtaanee mooy benn oustaz bu nekk ci temps bi ci Sénégal bi TFM. précisément oustaz Modou Fall gis nañu fan yi yëpp ay actualité mu ngi dox ci toile bi ci internet bi gars yi ci wax non li mu wax Macky Sall bu ko defalee li opposants yi di wax sympathisants yi di wax ñëpp ngi wax quoi mais ci biir wax ji man damay wax seeraan vidéo bi am naa suma jàngat suma jàngat mooy bon genre oustaz bi ni ma ngi gisee Modou Fall quoi laay wax parce que mënu ma continuer di wax oustaz bi yëpp bien vrai que avec tout le respect que mais Modou Fall dafa am benn affaire bu mu bu nga xamante ne nii ci bi ma seetaanee waxtaan bi moom laa gis muy dafa dafa comment xaw ma nu ma koy waxee dafa cere tuuti quoi cere bi mooy munoo nekk ci plateau télé télé ku nekk xam na temps wu télé lépp ñun yaag nañ ko dégg di ko xam xam lan mooy temps wu télé mënuñu la invité ci plateau télé nga toog ñu invité keneen yow nga nekk ci télé bi nekk ko xamante ne nii ci plateau bi consultant nga ci mais aussi ci groupe bi ngay liggéeyee ñu benn nit mu am lu mu wax. li muy wax dëppaloo dëppoo ak li nga far nga koy interrompre à tout moment buy wax ngay interrompre interrompre su ma doon wax ci moom parti bi nga xam ne moom laa jëkk a ciblé loolu la mënuñu invité ci nit muy wax même bu fekkee d'accord la ci ci li muy wax baal ba mu pare tey jii man bu ma seetaanee vidéo bi kooku ci li mu wax laa d'accord ci li mu wax la d'accord dans le sens que euh, président Modou Fall nee na dafa dem da ko jël audience mu dem mu présenté ko projet am mu présenté ko projet mu ne ko loo bëgg mu wax bëgg mu wax mu présenté ko projet am mu joxo nee na ay tonnes ciment peut être ak xaalis peut être mais bien quoi mais tey jii bu defalee loolu noonu sénégalais yëpp bu ñun bu neexee wax ci parce que il faut ñu am benn affaire bu ñuy fàtte parfois gars yi wax affaire politique boo ci waxee rek dégg affaire soxor affaire iñaan affaire yooyu ñu ngi koy sa biir famille sa tàdda bi li mu defal sa tàdda bee sa baajan li defal sa umpaañ affaire yooyu dëkk bi réew mi dafa am charte yu muy doxee ay charte constitutionnelle kon tamit Sénégal fii bu ñuy wax ci affaire yu tamit affaire politique la parce que politique moo fi fal Macky Sall suffrage universel moo ko fal ñun man yow keneen ak keneen Sénégalais yëpp 16 millions Sénégalais yëpp nañu considéré nañ ñoo demoon fal ko parce que fi mu nekk 16 millions Sénégalais yëpp la fa nekkal nekkalu fa ñi ko fal kese nekkalu fa ñi ko falul te dafa am ñuy fàttee tamit moom nee na la ko présenté projet daara mu nit ñoo fi nekk ñaata daara perso sama koñ am na daara boo xam ne depuis temps da ngay da ngay dugg foofu boo bëggee fel maat la nga fay dugg quoi bu sa yaram di xasan wala sa yaram nga namm sa yaram xasan nga fay dugg fel maat la après nga génnaat ñaata daara ñoo fi nekk ci insalubrité ñaata daara ñoo fi nekk ci ay conditions yoo xamante ne nii doxul kon je pense que Macky Sall bu amee daara bu muy tabax même bu fekkee ne Macky Sall ok président mooy président Sénégal am na salaire président Sénégal am na salaire moom renoncé wul salaire am ne aw ma salaire na salaire day lekk salaire am bu ko neexee mu jël ci mbir def nit mais pour man même bu dee salaire am joxe exemple bi mooy mu mu joxe mu jox association dimbale ko gis nañ ay footballeur gis nañ Allemagne 2014 dem football yi ñu fay ko prime mu ne may na ko xale yi nga xam ne demoon na seeti leen biir Brésil ñu nekk ci ay orphelinat may leen ko exemple yi fi ñu ko mën a na pour man Macky Sall moom am personnel dafa war a njëkk a joxe exemple bi ci moom même bu dee xaalis boobam lay joxe mu jox ko association wala mu xool benn kuréel dimbalee leen ko moo ko dimbalee ko nit waxuma laa nag ñuy laam-laamee amaana xaalisam la wala suñu xaalis la ko dimbalee lan lan la lan la kon sénégalais bu la neex bu mu neex bu la neexee nga interrogé wu ci point bi ne pourquoi ça tey jii man pour man ci Sénégal bi ma bëgg quoi man Sénégal bi ma bëgg pour man tamit képp ku bëgg Sénégal bu baax boobu ngay bëgg muy lan damay seetaan documentaire Thomas Sankara magam bu mu bokkal ndey ak baay ne temps mu nekkee ci palais bi bu daan dem toolam day jaar ci palais bi gis Thomas parce que il était accessible ñëpp dañ ko doon gis mu ne jaar na tegal ko ay projet projet ba pare mu jógee di saagu kuro bu ñu defaree deru crocodile bu mu jëndee temps nekkee formation militaire Madagascar jox ko ko ne ko peut-être mën nga ci am dara saak bu cher la temps en temps ok man pour man tey jii Sénégal boobu la ñu bëgg ci mu ñuy jiite tey jii ku ni Modou Fall ok Macky Sall mën na la defal benn affaire nice Macky Sall defal la benn affaire mais tamit pas question da ngay toog nit di jéem a posé wu benn question nga koy naan du ma la may loo wax parce que Macky la pas question du la may loo wax parce que Macky ñu man mën naa la comprendre perso man mun naa comprendre ku mel ni Modou Fall parce que tamit fi mu jugee ak xam ne ci TikTok bi la doon nekk di wax ay waxu defante man tey jii wax yi mu doon wax noonu bien vrai que oustaz la avec tout le respect que je doon wax yooy avant moo ñëw TFM man dama doon xool naan gaan bii nii wax yi muy wax nii waxu defante la quoi mais nag Sénégal loolu moo xew parce que boo xoolee waykat yi defante la ñuy way ay ñafal-ñafal fecckat yi bu ñuy fecc ba koy daaneel sax dina am benn kele bu soxor bu ñu génn xàcc dóor Sénégal bu soxor bi la ñu nekk quoi pour man nag Sénégal boobu noonu nekkul Sénégal bi nga xamante ne nii moom la ñu bëgg viol lépp dafa war a violent lépp dafa war a sadique nekkuñu si Sénégal boobu noonu mais moom yi mu doon wax tey jii ñooñu la gën a arrangé tey jii Modou Fall man Sénégal man damay wax quoi ci internet bi ñu nga xool nga def comparaison bi tey jii yow bu fekkee ne da ngay dund live bi nga xamante ne nii mooy live bu simple bi mooy toog jàpp suma jàmbur sama yoon nekkul ci kenn kenn nekkul ci kenn munoo nekk tifoso comment euh, fan si Modou Fall munoo nekk fan si Modou parce que li muy wax du la servir fenn. parce que bu naan la ay nit bu ñëwee sa kër nga ñëw këram bu la woowee nga woo ko bu demee nga dem loolu ay defante la quoi moom ci defante boobu la nekkoon ci TikTok bi ba mu siiw femmes yi fii Sénégal femmes yi ñoo bu ñu defantee bëgg oustaz bi bi xew xew nga nag bon li nga am yaa ne ma la woo yaa ngi TFM bëri na ay nit yu nga xamante ne nii bëgg nañ dem TFM bu ñu sañoon tey jii nekk TFM bëri na boo demoon TFM fi ñuy defee seen demande am nañu ay demande yu bëri ay CV yu bëri yu dugg yàlla dimbale la nga bokk ci ñenn ci ñuy toog foofu noonu ok loolu dimbalu yàlla la quoi mais tamit boo amul xel dëgg mën nga foog ne yaa ngi ci caverne d'Alibaba quoi ok yaa ngi ci caverne d'Alibaba parce que tamit benn moodu moodu ku nekk xam ne Europe li fa nekk kumpa la woon ci nit ñi mais léegi nekkatul kumpa ci nit ñi nga nekk Europe di def ay vidéo yàlla def ci barke muy dem ba nga ñëw toog fenn fi mais toog fenn fi tamit warul tax toujours nga def loo xam ne population bi la fal ci biir ñi nga xam ne ñoo doon bëgg Modou ne nii ànduñu ci. Euh, kumba am nday kumba amul ba kumba am nday kumba amul nday mooy lan jamono Abdoulaye Wade fi nga doon dégg bien vrai que ay xale nga doon nekk mais nga doon dégg ñi nga xamante ne nii ñoo ngi doon wax ci politique politique intéressé leen lu ñuy wax ah Abdoulaye Abdoulaye Mbaye Pekh ñëw pale nga jox ko lii affaire yooyu loolu lañ doon bañ kon bu ñu fi indee Macky Sall aussi war ko bañ moom Modou Fall boo ko laajoon perso dina la mës a wax mës nañu may nit wala mu dégg benn enrichissement illicite mu siisu tey jii sama vidéo précédent da ngay gis gars yi di commentaire peut nga wax ci nit ñu ne iñaanu man iñaanu ma aw ma lu may iñaanee man su ma live aw ma guerre ak kenn guerre bi man ak man laay guerre quoi mais lan du ñëw tamit dinaa ci wax suma xalaat ni ma ko jàppee ni ma ko xamante ne nii noonu laa ko interprété noonu laa koy xalaatee noonu laa koy waxee parce que noonu laa ko mais pour man toujours bu ñu jiital suñu intérêt wala liñ ñu defal wala fi ñu jëlee ak fi ñu teg parce que tamit bu ñu lay defal teranga dañ jéem a xool teranga bi fu ñu jógee may na la terrain may na la ay may na la comment dirais-je pardon pas terrain ay tonne ciment ok ay tonne ciment jël nga ko mais ñaari oustaz ñoo fi nekk bëgg ay tonne ciment ñaata nit ñoo nekk ci alaya yi fii nii fii Sénégal dañuy wax affaire jàng bi jàng bi jàng bi alxuraan bu jiitoo ci boppu xale bi mais alxuraan pour mu jiitu ci boppu xale bi il faut mu dem kokki quoi parce que daara ji temps bi mooy loolu da ngay tas li ma fiy gis ma fi yóbbu sama doom xale bu ans nekk ci télé bi di yalwaan xale bu am lii xale bien vrai ay internat yu baax ñu fi maam ay cousin ay mbokk ay lu nekk yu fay jàngee mais tamit li fi ëpp gis nañ ko kon saa su nekk je pense que projet buy dugg pour a nekk projet boo ne projet mbool pour affaire u daara projet ko muy alalu mbooloo mais pas daara pour Modou Fall ku ñu ne ñun daara ngay tabax ku ñu ku ñu ne tabaxoo sa kër tamit même bu dee tamit daara ngay tabax dawul suñu yaram parce que gis nañ fi yeneen daara ñun bu ñu juddoo ba léegi ñun ak daara ñoo nekk quoi pour man saa su nekk défendre suñu intere warul tax ñu ñaaw vis-à-vis ak public bi noonu la demee nag a ah, li ma wax tey jii bu fekkee dafa am ko nga xamante ne nii daf la touché perso maa ngi bu fekkee jubluwuma ci tamit wax ko pour mu touché la amaana jublu wax ko pour sama xalaat la wax ko pour ñu xool wax ko pour yow bu fekkee yaa ma ëpp xalaat nga dimbalee ma ko wax ko bu fekkee li ma wax am nga ci xalaat bu ndaw boo ci tiré nga jël ko loolu moo tax ma wax ko di jaar foofu di wàcce kaddu yi leen jox di daje amaana bu keneen defaatee ñu ngi ñëw pour waxaat di gis di wax encore une fois gis nañ commentaire gis nañ lépp mais saa su nekk ñu ngi leen di bëggee di gën a indi suñuy idée di ko partager leen wax aussi seen i idée nay ñëw ñuy partager